waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sama doomi bopp jii di Cheikh Salihu ibnu sëñ Muudu mu yebal si la fii nga dem a laaj ci histoire yu université bi nga xam ni sa maam Cheikh Abdoul Ahad seen maam sax laay wax sëñ Abdou Khoudous ñoom ak yéen ñëpp Cheikh Abdoul Ahad moo ko initié woon xalaat ko ndax ay yu bari da ciy gën yu nit ñi wax te lu bari ñi ciy wax dañoo xamut na mbir ma demee dëgg-dëgg. remar yi ciy sax mooy dañuy wax di ko féetale ci ni Sëriñ Abdou Lahad université bi am na kilifa yu mu ko doon defal nga xam ni siiw na loolu ci biir dëkk bi te fekk demewul noonu université bi Cheikh Abdou Lahad moo laajoon sëñ son bu foofu foofu mu nekk tey daara yi sëñ am satu jaxate la woon di ay toolam bi sëñ Abdou Lahad toogee ba xalaat université bi mu ñëw ni sëñ son bu pàkk yi nekk fii dama cee bëgg a jël lim sàngam miire ko def ko daaree seexul xadim université université bi Sëriñ Abdou Lahad bi koy def université bi Sëriñ Tuubaa la ko def tegtal bi ma ciy joxe mooy kayit yi mu bindoon te ba fi nga xam ne man mii bokk naa ci ña ko gisoon mu waxoon nit ma dégg ba muy lim ya muy lim université baa nga ci biir kayit woowe dafa bindoon ci loxol boppam wax ca ni kërug sëñ Tuubaa gi wuuf jumaa ji université bii ak daaree kaamil ji kër ga ca Pikine kër ga ca Pire yooyu ñoo fekk ci jamonoom ñu noppi mu ne yooyu hadiyatan xaalisatan li Seexil Xadim la alali sëñ Tuubaa la ku fi nekkal sëñ Tuubaa yaa ko yilif waaye du woon loo xam ne da koo jagleeloon kenn sëñ Tuubaa la ko lëggéeyaloon loolu mu leer seen bopp kon bis ni ki tey moo ca jëkk a dawalit lim bu takku ci xaalis miir boobu ngay gis bañ fa jëkk a def te sëñ bi santaat Baay Faal ñu yeesal ko jiili mbéye ko ñu doon ci lim bu takku recruté mi nga xam ne moo daal lëggéeyante ak alaaji Njuga Kebe te daan lëggéey lëggéey yu wér yu garante moom la sëñ bi faboon andi ko Touba bâtiment yu jëkk yooyu nga fa gis yëpp recruté ko lëggéeyam waaye lum ca masa def nag alali Sëñ Tuubaa ko defoon te bind na ko ci kayit bàyyi fi loola woy ba nag si may waxee yow kon histoire université bi ngay laaj dama lay leeralal ne la Sëñ ko Cheikh Abdou Lahad defaloon ñaaral bi itam bi ngeen ñëwee fii keroog tudde site bi Limaahin Basirin neewoon naa leen Limaahin Basirin mooy plan directeur u Sëñ Abdou Lahad ndax loo gis ci biir Limaahin Basirin rek initié eh, moom taxawal na ko door fee jóge université bi ngay tudd da caa bokk bil muntaxa lii banal xudduusu madrasatan biha yasoolul asa wal jaxdu wal kabadu mooy université boobu loolu kon li ma ne ne mooy plan directeur am loolu addee sëñ Tuubaa la mu leer la bis ni ki tey ñi ciy nattab lekka laam-laamee ñu xam ne itam Cheikh Abdoul Ahad bi mu koy def sëñ Tuubaa ko doon defal ba fi Cheikh Abdoul jógeet ci loxol sëñ si eh, ci Alaaji Baara nekk na ci boo de tegtal bi ma ci njëkk a jox mooy sëñ Saliou woo ko àggale ci noonee mu meloon bu njëkk ba mu ko bañ tàmbali faa jàngale njangum majalis bi sëñ Sidi Matar dikkee yàlla dogal na jotuñu faa leeral eh, yëngal lu am solo waaye sëñ Mountakha mii bi mu dikkee nag naal woowee moom la suñ borom dogal mu war ko taxawal ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba mu sottee ci. loxo balam lam ci yéene lépp mu am ko na mu ko bëggee si daraje Seexul Xadiim seen seen Abdou Lahad ba mu koy def boo demee ci bande bande yi bande yi ñu enregistré seen Abdou Lahad sax da nga ci digg waxam ci université bi naalal naa ko fi daara joo xam ni dana rëy dana rafet te des na ci jàngaleem jàngaleem xam-xam yarub diine yarub taalibe mi ngi si bande yi boo boo waroon ci biir bande yi da nga ko ca fekk kon loolu addee sëñ joo xam ne na leer ñëpp ni ba mu koy def sëñ Tuubaa ko doon defal ba remar si am ñu xam ne loolu bukkul ak li nekk lii moom laa ne woon naa la ko leeral bu ko defee yéen ngeen góorgóorlu te xam ne université bi buñ ko dee tabax yéen yéen ñii lañ koy tabaxal mag ñi wéy nañ ba noppi nun ñii di seen waajur it li ëpp ci suñu àdduna jàll na yéen ñi ñëw ëllëg nag bu ngeen dikkee xam ne ñi ngeen donn du ñu ay yaafus loolu mooy jëf ju rafet yaa ngi may dégg góorgóorlu leen bu baax te teg seen tànk ci saraat mustaqima te góorgóorlu te jàng ba ëllëgati si biir doomi Touba ji te université bi loolu la ñuy sàkku ci yéen ñi te ñu ngi leen koy ñaanal yàlla ci barkeb Sëriñ Touba Sëriñ Touba defal leen ko parce que siyaaral ma sëñ Mourou bu baax ak bokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu